Euh, asalaamaaleykum mbokku euh, téléspectateur euh, yi safoo saa su ne jàmm ji info point net mu mel ni rek ni mu mel ni war nañu waxtaan ci li nga xam ne tam lenn ci actualité tam muy grève bi nga xamante ni mën nañu ne tey mareyeur yi def nañ ko te duñu si sax sori dañuy dem directement te diwaanu Guet Ndar jëm faa jokko ak ki nga xam ne moo di Jibi Sarr di mool Jibi ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay baax di leen di leen baax yéen waa. Euh, seen sama mbokk yi ma leen di nuyu baax di leen siyaar. waa ji euh, mu mel ni bëggoon nañu xam euh, lan moo waral tey banque loxo bi ngeen banque loxo ba ñu dem géej. aw banque banque loxo pour damañ dem géej nekkul problème di problème mu pêcheurs problème bi problème mu mbëri mm-hmm. waaw ndaxte ñun mool ñun ñun ñun pêcheur maanaam suñu jën yi ñu jàpp ñun amuñu si mm-hmm. suñu teeree am ñoo xamante ne noo koy jël am noo koy jël mbëre noo koy jël pour importer ko pour yóbbu ko maanaam ñoom nag suñu bëggee seen baaraam ni ñoom duñu jënd suñu jën ñun amul lenn lu ñuy def lu may toog déglu leen mm-hmm. waaw ñun amul lenn lu ñuy def toog déglu leen daal waaw ñoom nag li waral seen grève li waral ñoom ni ñoom dañuy dañuy grève nee noon taxi yi leen nguur bi nguur bi daal di teg nee na loolu moo dépassé si ñoom nee loolu taxi yi daal ñoom noonu la ñuy jàmm daal loolu la ñuy jàmmat waaw mais ñun ñoom ñun pêcheurs yi ñun amul benn problème mais ñoom mareyeur daal noo am ñoom ndax ñu ne ñoom lay liggéey a ñoom noonu gën xaw jekku daal ndax ñuy war a jënd suñu jën noo ko war a jënd daal ndax ñun am ñun jën amuñu si daal. d' accord euh, léegi euh, euh, grève bi kañ ngeen ko tàmbalee ak kañ la ngeen ko fas yéene rek a ñun moom ñun ñoom dañu dañu déclaré ni le le quinze la grève bi di commencé. le 14 bis teer ñu teeree le 14 daal ñoom dañu wax ni suba daal gaaw gu dem géej tamit sa jën ko jënd après quai de pêche bi daal bépp oto boo xamante ne kon na si bi rek dañ ko dañ ko dañ ko jéem daal ke mën naa ne fi ma fi may waxee yow nii daal quai pes pêche bi benn gaal oto nekk fa daal waaw. waa waa waa kay jibi ñoo ngi lay ñoo ngi lay jaajëfal léegi sa ban euh, kaddu rek ngay waxaat jëmale ko rek ci ñi nga xamante ni ñu wàllum napp bi ak euh, ngir jàmm rek mën dellu si la sa yan kaddu ngay waaw li ma sama dernier cadre li ma mën wax mooy euh, ministre ministre de commerce ministre de commerce na leen déglu ndax tamit euh, ñun ñëpp noo bokk noo bokk réew mi ñun ñëpp noo bokk réew na ñoom noo xam seen gàllankoor li nga xamante ni mooy mooy seen pertement ak seen gagnant kon na leen jéem a jàppale si li nga xamante ni moom moom nanu wax ñun tamit euh, suñu ministre de pêche nanu jéem a jàppale si li nga xamante ni mooy licence de pêche yi parce que licence de pêche ñun fay nañ suñu xaalis bu yàgg ba yàgg ba léegi mais gis licence te licence bi tamit départ na si euh, Mauritanie yi départ na si ñoom te ñu mënagul départ si ñun daal waaw loolu mooy sama sama xalaat daal si si contribution bi daal li ma si mën wax. Euh, jërëjëf euh, Djiby euh, Sarr di fàttali rek yow mool nga di pêcheur foofee ca Gendar ñu du la santaat bu baax li waraloon mm. kàddu gi rek mooy grève yi nga xam ni mareyeur yi tamit def nañ ko tey tamit yaakaar naa ni sot ci ak def ci la yéen ñaar kon ñu lay jaajëfal jàmm ji info point net ñu lay jaajëfal Sarr. jërëjëf